jaajëfal alaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko taw sutura ak ciraanga ak poche def dara ñu koy baaxu di def fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci arisaala arisaala ay jataay la yoo xam ne mi ngi jëm ci jàng sunu diine àjjuma jot ci waxtu bi ci lañuy nekk bi nu génnee ci nodd ak liqaam ak yi ci aju dañoo duggoon ci julli nekkoon ci julli ba tollu ci charte yi dana am ñoo xam ne ak fàttali lay doon ci ñoom mu am ñoo xam ne bind yu bees lay doon ci ñoom mu am ñoo xam ne ñaar yu yëpp mën naa am weesu nañ ko ñu tolloon ci charte julli ba gisoon ne dafa am charte bu ñu wax xam ne waxtu yu dugg na ñaarlu charte bi muy charte bu ñuy wax laab ci toj maanaam nit ki amul njàpp wala wala yor na janaba wala yu ni demee mu di al asxar wal akbar gisoon ci ñetteelu tomb bi mooy laab goog gu mag la laabu yaram yére ak barab bi ngay jullee barab bi nit ki jullee warta am sobe ay yéreem warta am sabe aw yaramam warta am sabe yére yu tilim nag ak yére yu sabe wu du benn yére yu tilim ak yére yu sabe benn fóot yére yu tilim moo gën a yomb fóot yére yu sabewu moo tax yére yu sabewu mën naa ñàkk a bari waaw mën naa ñàkk bari yére yu tilim nag moom mën naa bari ndax ñaare léeg-léeg nit sol yére solaat ko mu lemu mbaa mu foragé wala mu mu pënd mu yóbbu ca fóotkat ba mbaam mu fóot ñeenteel ba ñu ñëwoon ci sàng say awra loolu baat bi nag wolof firiwu ko awra rek la waxte awra arab la awra arab la ndax léeg-léeg day am ci sunu pénc mi baat yoo xam ne pénc mi du nangu nga wax baat ba ndax teggin léeg-léeg moo ko dul maye waaye boo ko junjee bañ xam ko te loolu rek nga ci bëggoon doy na sëkk bu doon baat boo wax nag kenn xamu ko wax nañ ne jaaral ca baat ba te boo noppee nga laali doom awra sunu borom daa wax ci alquran ci saar wu tudd aaraaf ay fanweer ak benn yaa bani aadam xuzu zinatakum inda kulli masjid bani aadam ay nit lañu ñoo xam ne aadamaay seen baay ñoom ñépp li muy tekki ci laay ji mooy ñun ñëpp ndekk ñoo bokk baay waaw li muy tekki man mii di wax ak yéen ñiy déglu ndekete ñun ñëpp ñoo bokk baay bokki loolu bu mokkoon ci alxuraan ci kum njàngam xeebante xew yi xastante xew yi yàqub del xew yi reetaanante xew yi ndax bi yàllay wax daf ne yaa bani kon ñun ñëpp americain bi chinois bi japonais bi saoudien bi wala boog arabe bi bi kule bi gë bu gën a yaatu africain beeg ka ca ñépp ku ne ashhadu an laa ilaaha dugg nga ci ku ko waxati dugg nga ci ndax ñun ñëpp borom bi daf na yaa bani aadam daal ni xuzu zinatakum inda kulli masjid waaw xuzu zinatakum ak zina ab taar la zina xeetu taar la mooy booy julli ji na nga taaru moo tax am na xeeti col yoo xam ne duñu ko sol ci julli équipe yu baree bari seen panneau publicitaire yi dañ koo soppi def ko ay mayo ngay julli ci ginnaaw nit mu sol mayo nangam xëy na imaam yi duñ ko def waaye ñun ñuy julli ci ginnaaw imaam ñoo ci dul bàyyi xel sol benn tiset boo xam ne dafay am équipe bu muy publicitéel dara wala joueur bu muy publicitéel dara wala marchandise mu ñuy publicitéel dara walla genn feet wala benn semi euh, benn séminaire lu bare bare bari ci may yooyu dañ koy sol te boo ko sampoon ci euh, communes yi panneau publicitaire boobu war na di fay war na di fay bala muy fay jeexee ñu buddi ko mbaa ñu changé ko léegi nag nit ñi fexee nañ ba doom aadama yi ñoo nekk panneau publicitaire yooyu ci ci jàkk yi ak ci jumaa yi mbokk lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la masañ cee def waxtaan ndeysaan ndongali ba <laughs> mu am yum ca daan jëfandikoo mu xëy rek woo ma téléphone ne ma tey li mujj sama yaram bi ma ne ko loolooy njàngale mi nag waaw ndongali ba nga fële ca cees Pape Ba alaaji Pape Ba kon bi di publicité nit ay bagage mi ki marchandise am wala ab xew-xewam te di ko jullee ji sunu borom nee na xuzoo ziinatakum inda kulli masjid ba dema ci fiqhu sunna bu Sayyid Saabix ca euh, jukki bu njëkk ba ba mu ci ñëwee def ne wal muraadu bi ziina maa yasturul awra wal masjid assalaa nee na bi mu ne xuzu ziinatakum inda kulli masjid nam ko firee mooy baatu ziina bi mooy sàng sa awra mu ne masjid ci laaj ji mooy julli maanaam sturu awratakum inda kulli salaa muur leen seenu yaram bu ngeen di julli muur leen seenu yaram bu ngeen di julli waaw moo tax jële nañ ci salamata ibnul akwa radiallahu anhu mu ne waaw mu ne qultu ya rasulallah afa usalli fi l qaala naam naam hadis bi daa wax ne salamata daa ñëw ci yonent bi ne ndax mën naa jullee xaftaan mu ne ko waaw mu ne ko waaw mën nga ko jullee waaye Euh, fexeel ba tapp ko doonte ak dëkk ngay wut tappe ko ko maanaam su fekkee xaftaan bu ubbeeku la fexeel ba ub ko waaw xaftaan bu ubbeeku la fexeel bu ub ko doonte ak dëkk ngay jël déggu sump mbaa dëgg yu mel noonu boole leen ñoom ñaar jam ca dégg mu ubb mooy sunu ping yii tey wala sunu bouton yii tey hadis boobu albuxaari nettal na ko fi taarixihi wa xayrihi loolu ci la bokk maa ngi ci arisala waxtaanu fajaru ajjuma nekk ci e, julli toll ci sarti julli ba toll ci sartu ñeenteel te mooy sàng sa awra bu dee góor bu dee góor moom li tàmbalee ci e, góor mooy ndigg li ba ci pooj yi ndigg li ba ci pooj yi loolu mooy gën a gàtt ci wax ko ku mel ni nogoy waaw ñuy wax ne la tàmbalee ca jumbax ba ba ca bëti óom ya góor su loolu sàngoo ci moom lu xewati yàqul julli ga góor su su solew yére boo xam ne tàmbale na ci jumbax bi ba ca doj ba ca ba ca ba ca ba ca óom ya waaw lu xewati yàqul julli ga Mhm. mu ngoog eh, boroom xam-xam yi da ca des nag werante ya ma nga ca waaw waaw ja ak déet ja waaw ja ak déet am ci ñu wax ne pourtant pooj de du awra am ñu ne aha kay awra la pooj ñu ne awra la ñenn ñu ne du awra de dafa dem ba ca bëti óom ya loolu am na ñu wax ne du awra am ñu wax ne awra la bu ñu dégluwoo ñu wax ne du awra suñu yaay Aïcha radiyallahu anha daf na yonente ba alayhi salaatu mas naa toog poojam di feeñ suñu yaay Aïcha mooy nettali ne fi ñu toog poojam di feeñ Abubakar Saddiq daal di daal di sone mu jox ko ndigal lu ñëwal waaye sangul pooj ba ñu toog tuuti Usmaan Omar ibn Xattaab agsi mu jox ko ndigalu agsil te sàmm sa sàngul pooj ba Usmaan ibn Affaan agsi bu Ousmane Ousmane Affan accès joxe ndigal ah, daal di sone yonent bi daal di sàng pooj ba loor ne ko agsil waaw comme ñoom nag occasion daaw ñu ko rate occasion bu mel nii ëpp naa rate Abubakar Sadiq bisimilah jàll sil Omar ibn Khattab bisimilah jàll sil Ousmane biñ koy la tax bisimilah jàll sil pooj boobu feeñoon ñu sàng ko door ne ko jàll sil bu dee dooru si la day poser question waaw ah su ne ay si na ko waaw li xew moom firil ñu ko li xew firil ñu ko mu ne ko mu ndax duma am kersa ci ku yàlla am kersa ci moom wala ma ndax duma rus ku yàlla rus hmm? ala astahi min rajulin wallahu wallahi inna almalaika la tastahi minhu mu ndax du ma koo xam ne kii malaaka yi dañ ko rus waaw buñ ci waxut yàlla rus ko it ngeen baal ma malaaka yi dañ ko rus rawaw ahmad al buxaari nettali na ko waaw loolu ci wax yi ñane pooj lay sat bi awra loolu ca la bokk ñu jële ci anas ibnu malik nekkoon ca kër yonent ba alayhi salaam bokkoon ci ñu doon jàpp ci liggéey ba yow ma xaybar yow ma xaybar lifir lifir jéeg xeex baag yépp tax na euh, pooj ba feeñ euh, anas nee na ba man maa ngi gis maa ngi gis pooj bi loola ñu ngay tegtaloo ne kon bu fekkoon lu warta feeñ la aleyhi salaatu salaam du ko bàyyi mu feeñe noonu moo tax ñu ne fa sax ibnu xasm mooy wax ann al faqsa laysat bi laysat awra walaw kaanat awra lamma kachafaha allahu azza wa jalla an rasulillahi waaw loolu tam ñoom tam ci seen lay yi wax ne pooj du awra ca la bo ca lañ ko indi ngoog lu am solo la ci bunt boobu ñetteel ba muslim jële ci abul aliya al mu ne inna abdallah ibnu saamit daraba faqsi wa qaal inni saaltu aba dar fa daraba faqsi kama darabat kama darabat kama darabtu faqsaka wa qaala inni saaltu rasulullahi kama saaltani fa daraba faqsi kama darabtu faqsaka fa qaala salli salaa li waxtiha ila axiril hadis nee na ci ñetteelu lay wi euh, muslim dafa ñëw di wax abu saab abdullah ibnu saamit ba àgg ci mu dóor ko ci pooj mu ne ko lii nag mu ne dama koo laajoon ku ma dóor ci pooj moo tax nga laaj ma ko mu dóor la ci pooj lañ lañ cey jëli ñoom mooy du awra waaw ñeenteel bi ci ñiy layal ne pooj du awra mooy ibnu xasm euh, moo wax jële ko ci Jubayr ibnul Xawaaris wala Xuwayris mu ne dafa xool sama pooj bi fekk pooj bi mureeku waaw te itam maa ko muri woon te itam kenn sikkaluma ma ca la ma defoon loolu mooy layu ñi nga xam ne dañu ne Eh, alfaqs laysat bi awra ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañu ne awra la loolu nag la tuddee wuuteeg boroom xam-xam yi wuuteeg boroom xam-xam yi imaam docteur Yusuf Ka yal nu ko yàlla ca tombam ba tudde woon waxdatul muslimin ca la doon xàjjalee ixtilaaf ak xilaaf ñaare da ngay dégg ixtilaaful ulama waaye ñu dara xilaaful ulama moo baaxul mhm. ñi wax ne awra la dañu jële ci Muhammad ibnu Jahsh mu ne sallallahu alayhi wa sallam la romb woon voilà sallallahu moo romb woon euh, Omar bi mu rombee Omar fekk ñaari pooji Omar yaa ci biti mu ne ko yaa Omar xatti faxsayka fa innal faxsayni awra mu ne ko muural sa ñaari pooj yi ndax ñaari pooj awra lañu waaw loolu imaam ahmad nekk na ko xaakim nekk na ko ak al buxaari ci xam ba kon loolu ci benn la ci layu ñu wax ne pooj awra la ñaareel bi ñu jële ko ci jurhud mu ne sallallahu alayhi wa dafa romb aliyun mu ngi yor benn manto waaye pooj baa ngi ci biti walla pooj yaa ngi ci biti mu ne ko muural sa ñaari pooj yi fa innal sa awra rawahu malik wa ahmad wa abu dawud wa tirmisi wa qaala xasanun ñooñ tam lii ma wax ni ñaar yi mooy layu ñaari groupe yi ñee ne awra la ñii ne du awra ku ci nekk indi nga say lay say tegtal tegtal yooyu nag mooy tax borom xam-xam yi nangul borom xam-xam yi seen tegtal yooyu bu dee jigéen nag bu dee jigéen yi ma doon wax ni ci góor la bu dee jigéen euh, wala yubdina na illa ma zaara minha daf leen joxoñ ndax jigéen am na ñetti taar bi ci néeg bi bi ci ëtt bi bi ci pénc bi bu ci nekk am na contrôle bu ci alxuraan jàngale bi ci néeg bi bi ci ëtt bi bi ci pénc bi illa ma min ha ba ca pénc ma la waaw illa li buulatihinna ba ca néeg ba la aw abaihinna ba ca ëtt ba la ba ca ëtt ba la moo tax ñett yooyu bu ci nekk jar ca bàyyi xel bu ñëwee nag ci julli jigéen bu ñëwee nag ci julli képp koo xam ne kii toll nga ci gis sa baax maanaam toll nga ci at gis say règle waratoo julli illaa bi ximaar waaw waratoo jullee lu dul yére bu jot boroom xam-xam yi ñu ngi koy tàmbalee def lenn ci tailleur yeeg yu nu demee walla boo demee Makka Pakistan yi dañ ko di indi léeg-léeg yenn yëre lay doon boo xam ne bu ko jigéen ngi solee loxo yi dana jot ca suuf dana jot ba pare dana am lu muure boppam mosoon nañ ko fee tàmbali sax di ko di ko di ko ñaw di ko jaay malheureusement <laughs> eh, mu ngi noonu doxut waaw doxul ba mu jàgg dañoo lem yépp rek boole ko ca yére yay dem ca ca ca ca ba waaye daal eh, lu am solo la te ni boo xam ne jigéen da koy am bu jul rek sol ko dana jot ba ca suuf te yaatu na te fatt na te dana am lu muur ci bopp bi loolu boroom xam-xam yi buñ ci déggoog tailleur yi ñawal ko jigéen boroom xam yi buñ ci déggook tailleur yi ñawal ko jigéen ñi bu fekkoon du lamb du lamb ñun ñii bu ñu demee màkk kon goddi ca lu baree baree baree bari malheureusement <laughs> mu ngi noonu rekk yëf yi yëmbut loolu si la ala xaal li ñu bëgg ci jigéen kon buy solu mu sol lu jot loo xam ne dana muur yaramam wépp ba mu des xar kanam bi ak tenq yi fatt waaw yaatu jot fat waaw su ko defee buy julli ah bu dara feeñ ci yaramam hmm? eh, bu dee ci lu jëm ci wàllu dojor nag dojorub jigéen am na ñu wax ne dojor baag dojorub góor yam ndax loola du du lu lu jigéene walla lu góore bu ca jigéen dugalee nag yeneen yëfi boppam waaw fuddan koog tatouage yu nu demee a ah, su boobaa nag moo ko jële ca lu lu yomb la indi ko ci lu xaw a jafe mbokk yi loolu lenn la ci euh, charti julli mu doon sunu bindu arisala bu nu yàlla mayee nu dund ba déglu ko ñaar yoon ba ñett danañ indi bind bu bees daal di tàmbalee dugg ci julli ci boppam salaat yi nu ñuy jullee jaajëfal nañ leen jégglu soxna yi jégglu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi ak réew koor gaa ngi ñëw yàlla ñu fi bàyyi buy yem yàlla ñu fekk sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncal na ko ci wàllu ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo yi C3S mi ak Café Teranga mi ak yi bëgg a ñëw yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataat wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu